asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñuy seetaan ci seen chaîne MTV ñoo ngi fii ci centenaire euh, fas yéene waxtaan ak yéen ci xew-xew bi nga xam ne moo am euh, maanaam tey la journée mondiale xijaab mooy ñi nga xam ne ñoom lañ jagleel euh, muuru donc ñu am suñu xarit suñu jigéen ñu laaj ko lan lan moo ko dugal ci muuru ñu ngi lay nuyu d'abord. ça va maa ngi leen di fay bu baax. d'abord muuru dafa nekk loo nga xamante ni lu yiw la loo nga xamante ni rafetlu nañ ko ci milieu ci ci ci côté religion musulmane bi et aussi gis nañ ni tendance la parce que xale yu jigéen ñi léegi ñu ci ëpp léegi koo ci gis mu ngi muuru dafa nekk lu yiw lu jot loo nga xamante ni ku ko gis dalay naw respecté la jox la sa place. yow mën nga ñu wax kañ nga dugg ci muuru ban année nga muuru ak lan moo la dugal ci muuru. non man bi ma si duggee franchement yàggul dafa nekk loo nga xamante ne daf ma neex et aussi di nga mën a sol yére yoo xamante dina jot te ku la gis dina la jox sa gëdd jox la respect bi nga xamante ni moom nga yellool loolu rek a tax man ma dugg si te dafa nekk loo nga xamante ni c'est c'est c'est obligatoire suñu suñu côté religion loolu moo tax. waaw bu njëkk dañ doon gis euh, ñi nga xam ne dañ doon muuru ñoom euh, dañ daan yiw lool c'est-à-dire dañuy sol lu jot waaye comme yow ni nga ko waxee yow tey niñ la xoolee nii yaa ngi fashion ba dee alors. est-ce que muuraay ànd na ak euh, ki nga xam ne day sol tubéy jean lacoste comme ça comme yow ni nga ko defee. waaw man man dama genre damay muuru mais aussi n'empêche damay sol li nga xamante ni war naa ko sol damay sol jean damay sol robe mais ça veut pas dire que ni muuraay bi mun ta ànd ak lool bu ñu nee robe mun nga sol robe boo xam te day wàcc ba ci suuf bu ñu nee lacoste mun nga ko sol parce que yére la. xam nga daal la muuraay yi di bañ muuru ba pare di sol yu gàtt wala muuru di dem ci yenn milieu yi. la parfois dañuy gis lu mel noonu. non am na am na bu baax parce que dëkk bi en plus génération bi ñu toll nii lu si ëpp ni ñu dañuy muuru parce que sama morom muuru na nit ki day muuru parce que lii tendance la nit ki day muuru parce que am na léegi da ngay gis ibaadu yi ko si gis day muuru make-up kanamam ba mu ku ci nekk daal yaa ngi xool côté bi nga xamante ni bu dee esthétique bi nit ñi ñu ngi ciy ñu ngi ciy dem ci côté boobu noonu te gis naa ne sax léegi loolu moo gën a ëpp. parce que léegi d'habitude sax da gis salon yi ñi nga xam ne ñoo dul muuru ñoo koy gérer mais léegi da nga gis ni ibaadu yi ñoo ëpp li ñuy gérer salon yi dañuy def yu rafet macha allah vraiment. te ma rafetlu ko lool kon daal bu ma la déggee maanaam yaa ngi rafetlu. Euh, modernisation bi am ci biir muuraay c'est-à-dire ñu def make-up bu baax mhm. daal di def seen kol mhm. yow ànd nga ci lool ànd naa ci bu baax sax parce que dafa nekk loo nga xamante ni dafa rafet te dafa yiw rafet na trop parce que jigéen lépp lu koy pour man lépp lu koy taaral rek daf ko war a def. ba tey ñi ngi tey si journée mondialu xijaab mooy ñi nga xam ne ñoom la jagleel muuraay yi ñi nga xam ne dañuy muuru yow nag moom gis nañ ni muuru woo da xaw a fashion comme ni ko xale yi di waxee donc lan moo tax yow déjà muuru te li nga xam ne muuraay sunu diine daf ko digle. <laughs> ci côté diine ji duma ci xaw sori tuuti parce bu ma ci soree rek. day mel ne comme dama dama xaw a dugg ci loo xamante ne xaj na man xaw ma ci bari. du ma ci xaw a sori mais quand même muuraay dafa nekk loo xamante ne déjà ñun suñ tradition la euh, parce que fii Sénégal ku ne xam na ne dañoo xam muur suñu yaram. moo tax yow muuru <laughs> bëgg nañ ko nag xañ na ñun dañuy topp tendance ak mode ak jamono mais ki personnellement kenn ku si nekk xam nga bu baax li nga xamante ne moo baax. alors boo xoolee bu njëkk bu ñu jisaan euh, sunu jigéen ñi nga xam ne dañuy muuru dañuy muuru ba mu jot rafet lool macha allah lépp wàcc ci suuf mais léegi nag dañuy faral di gis xale yi dañuy tendance voilà dañuy def tubéy bu serré daal di def muuraay est-ce que loolu aussi euh, encouragé na diine ji wala déet. parce que des fois tamit dafa am yoo xamante ne liggéey bi da koy laaj parce que boo waree xëy di liggéey amaan na yenn accoutrement yoo xamante ne doo ko mën a sol parce que des fois boo waree daw wala nga war a def course mooy lool xam nga des fois di nga wàcc war a njëkkante oto am na yenn muuraay yoo xamante ne du la ko permettre. mooy loolu kon yow daal tu d' accord à ce que muy ñuy def jean bu serré def muuraay. non pas fashion comme pas pas pas comme mu extra mu extravagant daal mais nit mën nga euh, def de sorte que ne ça soit adéquat ça soit adéquat wax dëgg yàlla man moom contre ma ñi nga xamante ne dañuy muuru ba pare di sol tubéy parce que des fois euh, instant bi loolu la laaj parce que ñoom tam dañuy liggéey di dem di doxi seen soxla ku ne xam na ne des fois jilbaab nekkul ne milieu yëpp la mën a def parce que mënoo ko sol di njëkkante oto. man Ngone. Ngone. Faye madame Touré. Ah, depuis kañ nga commencé di muuru. ah man depuis ma dugg école parce que man franco-arabe laa doon def depuis ma dugg école ba léegi man dama muuru. parce que école dañu doon muuru après si laa ko continuer continuer muuru léegi nag gis nañ ni tendance bi léegi dafa changé parce que xale yi léegi mën naa ne muuraayu fashion la ñuy muuru parce que boo xoolee yéen mag ñi yéenay faral di def yii nii ngeen di def léegi nag yéen nan nga jàngatee xale yi façon muuraay bi ñuy muuru parce que dañuy def yére tubéy bu dang daal di muuru est-ce que loolu yéen. loolu moom yenn saa yi sax man daf may jaaxal yenn saa yi sama jëkkër ñu waxtaan si. da ngay gis xale yi ñu sol ay body ay jumbax awut ay tubéy yu seere teg teg si kool ah mën na am tendance la comme ni nga ko waxee rek ma waaye nañu gën a rafetal muuraay bi rek ñu xam ne affaire lislaam la affaire diine te diine dañ koy rafetal suñu borom loolu la santaane diine dañ koy rafetal surtout koo xamante ne nee nga jullit nga doomu jullit nga booy def ba a bëgg a def si kaw nekk musulman ci suuf nekk nekk safaan wi nasaraan tamit moom loolu sabotage la daal nañ ko nañ defaraat bu baax nañ ko defaraat bu baax muuraay bi moom moo gën a rafet daal. kon nag ñu ngi lay kontaane bu baax a baax soxna si.